teet leen Mame ko wax sëgg leen sëgg ko rek sëgg leen tool yi sëgg leen ko rek Mame Maodo Goré Mame Maodo Kaba Mame Maodo Goré Mame Maodo Goré Mame Maodo Kaba waaw mbokk yi nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fii mooy tool yi jag saaw tool yi nga xamante ni Cheikh El Hadj Abdoul Aziz moo ko amoon tabarakallahu di ko topp ba yàgg tey mu bàyyi ko njabootam bu tëdd yi kon mbokk yi bu ngeen déggee loolu xam ne mooy Jaksa bu Cheikh Seydil Hadj Malick kooku ngeen dégg nag muy animé mooy Pam Moussa Diop mi nga xamante ni xajara Cheikh Seydil Hadj Malick rek moo ko ñor boo gisee kooku kooku mooy uh, ki nga xamante ni mooy Serigne Mbaye ànd ak sunu rak uh, ki nga xamante ni mooy Souleymane kon mbokk yi bu ngeen déggee loolu ngeen xam ne lii mooy tooli Jaksa wi kon ñu ngi ci woo ñëpp di wax ku ñëw ku ñëwul ñu lay ñaan yàlla luñ fa am yàlla nañ ko bokk ci barke yonent bi